voilà salaamaaleykum euh, mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni yéenay euh, safoo leeru suñu TV euh, venu dans votre émission li ci dëkk bi li ci dëkk bi tey ma dalal ki nga xamante ni kilifa gu mag la ci wàllum politique ñu gën koy xam ci ki nga xamante ni moom moo nekk docteur Abdourahmane Diallo. mu nekk koo xamante ni coordonnateur du mouvement Benno Defar Karang nekk doomi Karang tamit nekk en même temps conseil municipal dans la commune de Karang mu nekk koo xamante ni tey mu nekk premier coordonnateur APR ca Russie euh, moom Abdourahmane Diallo tamit nekk coordonnateur du mouvement Benno Defar suñu département maanaam le département de Foundiougne en même temps mu nekk euh, koo xamante ni tamit liggéey Karang rek moo ko ñor. tey kooku la tey euh, suñu TV dalal tey seen émission bu mag bi nga xamante ni Sénégal yëpp kiy war mu nekk li ci dëkk bi laata ñu def loolu rek dañ koy jox suñu micro nuyu ko ñu xam bu baax lan ñu andi tey ci plateau li ci dëkk bi di ko wax asalaamaaleykum wa rahmatulah docteur Abdourahmane Diallo. waaleykum salaam wa rahmatulah di jaama maa ngi leen di nuyu yàgg euh, soxna siste Cissé bi nga àndal eh, maa ngi leen di nuyu di leen naan euh, maa ngi leen di dalal fii ci kër gi. Eh, ci suñu cadre émission bi maa ngi rafetlu aussi dalal bi ma leen dalal. voilà merci docteur Abdourahmane Diallo ginnaaw bu ñu la nuyoo nga delloo ñu ko bëggoon ñu xam kan moo nekk Abdourahmane Diallo. ok merci par rapport ak sa question question bi dama lay remercier d'abord di la naan euh, bu ñu laajtee kan mooy docteur Abdourahmane Diallo ndaw la bu juddoo Kaarang euh, màggee fa dalee fa euh, jàngam. dem Toubacouta fa la defee sixième jóge fa dem Sokone fa la amee BFEM jóge fa dem fee di Thiès fa la amee bagam donc 2003 bi mu amee bagam si la ñëw fii dakaar fi mu amee bi mu amee maîtrise en 2008 si la dem Russie fa la amee master 2 am ak doctoram donc voilà bi mu amee doctorat am nag euh, si la ñib si 2014 bi mu ñëwee 2014 euh, si la yàlla def ñu recruter ko fee di université Cheikh Anta Diop bu Dakar si la commencé jàngale donc depuis 2016 mu nekk enseignant formateur fee ci faste FASTEF ginnaaw euh, ak activité professionnelle am aussi mu ngi yëngatu ci li ñu naan politique jiite mouvement yooyu noonu nga tudd sànq si sa présentation. voilà merci euh, beaucoup yéen a ko dégg yéen ñi nga xamante ni rek yéen a ngi bàyyi xel leexu suñu TV tey ni ñu ko waxee rek euh, yaakaar naa ne tey plateau bi dana alaadame parce que ponkal la ñu dalal tey suñu plateau. Abdourahmane Diallo ginnaaw bu nga defee sa parcours yëpp mu nekk parcours bu macha allah tey nga dem liggéey professionnel nga choisir politique pourquoi nga bàyyi lépp choisir li nga xamante ni moo nekk politique loo dugal ci politique. bon sa deuxième question euh, am na solo ma yaakaar ne li dugal ku ne ci politique euh, mooy njëriñu askanam di njëriñu goxam dañu gis ne suñu population euh, muy population bu Foundiougne particulièrement bu ñombaato rawatina population bu Karang dañu jànkonteel jafe-jafe yu métti métti lu mel ni moom moo ñu poussé ñu engagé wu ci politique au-delà nag di département de Foundiougne pare nañ pour servir li nga xamante ne mooy Sénégal muy Afrique muy àdduna bi parce que tamit euh, gëm nañ ne fi mu toll nii ci mondialisation la ñu toll politique bi nag li ñu ci dugal mooy fexe daal euh, jàppale li nga xamante ne moom mooy euh, li ñu naan population bu Sénégal ak population Afrique jërëjëf. d'accord voilà merci yéen a ko dégg ndox ñu gis Abdourahmane nga créé benn mouvement bu ñuy wax nga nekk ci coordinateur muy mouvement Benno Defar Kaarang balaataa loolu nag Abdourahmane yaakaar naa ne nekkoon nga ci russe di jàng bu nga ñëwee tamit nga servir li nga xamante moo nekk ci dëkk. Euh, nga ñëw créer mouvement bennoo Defar Kaarang laataa Benno Defar Kaarang boobu yan anam nga duggee ci politique da nga xëy rek créer ay affaire wala dafa am ku la woon na kaa ñu politique am déet. waaw sa troisième question am na solo man euh, politique bi ma nekkee Russie en 2008 euh, bi président Macky Sall amee jafe-jafe ak wadd Wade eh, ñu dàq ko assemblée nationale ñu gisoon ne et une injustice loolu moom moo njëkk a nekk motif bi mu poussé ma engagé wu pour accompagner doomu Sénégal boobu nga xamante ne dañu ko tooñoon dàqee ko assemblée nationale te mu amoon benn projet bi nga xamante ne sénégalais yëpp dañ ci amoon yaakaar muy projet yoonu yokkute donc 2008 laa engagé wu président Macky Sall moom moo taxoon ma engagé wu eh, ginnaaw engagement boobu noonu en 2010 euh, suñu benn frère bu ñu naan Lamine Ngom eh, mu ngi fee si Thiès moom moo ma envoyé woon ce qu'on appelle les statuts du parti ak règlement intérieur eh, parti bi donc 2010 euh, laa commencé engagé wu ak euh, président de la République Macky Sall juste bi ma jógee foofu noonu nag bi ma ñibbisee Sénégal si laa lancé le mouvement bennoo Defar Karan amul kenn koo xamante ne mos naa mën a participer ci développement réew mi sama développement gox ma engagé wu ci politique donc euh, question boobu noonu ma ci wax. d'accord ci euh, moo la sollicité pour nga liggéey ak moom ñu gis na jógee nga Russie ñëw Sénégal nga jël sa yoonu bopp àndoo Macky Sall nga nekk un pur opposant de Macky Sall koo xamante ni mën na wax ne ca Kaarang yaa nekk opposant bu gën a dëgër bopp opposant boo xamante ni ñëpp la bàyyi xel li tax nga Macky Sall gën la posé nga dugg ci politique nga ñëw Sénégal rek boycotté ko lu waral loolu. waaw euh, par rapport ak question boobu comme ni ma ko waxee sànq euh, dama gis ne injustice moo taxoon ñu jëlee ko assemblée nationale bi ñu ko jëlee foofu noonu ma amoon yaakaar ne président de la république bu ñu ko tegee ci bopp réew mi. dina gëstu surtout ce qu'on appelle euh, les masses défavorisées ci masses défavorisées yooyu noonu Kaarang bokk ci parce que Kaarang ku ko tudd ku nekk rek xam ne dëkku frontière la ñu amoon ay jafe-jafe ndox jafe-jafe yoon jafe-jafe lycée jafe-jafe stade municipal donc voilà bi président de la république ñëwee moo PSE bi plan Sénégal émergent PUDC le programme d'urgence de développement communautaire PUMA programme Promoville ñu amoon yaakaar que ne bu ñëwee dina gestu li nga xamante ne mooy suñu gox di Kaarang ak Foundiougne li ci Kaarang nag ñu gis ne jafe-jafe yi ba léegi dafay continuer di fa am lii nag bi mu demee ba mu am te ma ne woon man dama ñëwoon jiite pour jàppale sama askan te mënu ma woon continuer nekk ci ginnaaw président de la république waa Kaarang continuer di am ay jafe-jafe lii moom moo demee ba élection municipale yu 2014 ma décidé maak ak waaye ñu demal suñu bopp wan président de la république ginnaaw wan ko ne li taxoon ñu engagé wu population bi la bi ñu demee nag bu population gisatul boppam yoon la tamit ñu taxawaat xoolaat ban yoon la jël lii ci gàttal moom moo waraloon suñu réeru ak suñu xaaj suñu yoon jël yoon bi nga xamante ne ni moo nekkoon yoon bu waroon a jëmale Karang ci kanam. ndax mu ngay jël euh, euh, donc bi may génn effectivement waxtaan naa si ak yenn responsable départementaux ak yenn ministre am ak yenn DG Euh, DG bi ma si mujj a waxtaanal mooy DG biram fay moom kese moom moo ci manifesté woon euh, désiru accompagnement. invité mu ma dellusi si parti bi jàppale ki nga xamante ne mooy président de la république mais boobu la décision a été déjà prise ñu waroon a ànd ak ki nga xamante ne mooy la docteur Cheikh Tidiane Gadio maa ngi koy remercier au passage parce que suñu compagnonnage aussi dara ñaaw ci seulement nag entre temps eh, nit ki and boo gis bu ne rek comme ni ma koy waxee yàlla moo koy tudd bu waree jeex aussi day jeex te à chaque fois bu yàlla defee mu jeex aussi nañ rafetal. ñu moytu yenn yi ànd ak nit ki ba un certain maa nga won ko ginnaaw bëgg a taxaw di ko xalab man duguma ci yooyu te du ma dox ci loolu noonu aussi donc bi may génn ci parti bi comme ni nga ko waxee aussi bon ginnaaw DG Birame fay yan yenn ministres yi ils étaient inaccessibles ki ma si mujj a daje nag bëgguma tudd turam mais xam naa vers la fin de l' émission dinañ euh, ñëwaat un peu ci li nga xamante ne moo waraloon yenn divergence yi jërëjëf d' accord yaakaar naa loolu da nga tudd lu am solo ci sa biir wax mooy euh, Cheikh Tidiane Gadio moom mu nga wax ñu gisoon docteur Abdourahmane Diallo moom mu nekkoon foo gis Cheikh Tidiane Gadio gis ko ba dem nañ ba Kaarang ba ngay liggéey li kenn ki nga xamante ni moo nekk Cheikh Tidiane Gadio euh, Abdourahmane Diallo lan moo tax nga ànd ak Cheikh Tidiane Gadio ab dis nga bàyyi ko dégg naa ci waxi gars yi ñuy wax ne Cheikh Tidiane Gadio moom da nga kaa da nga parce que bu ko Macky Sall bu ma demee nga xamante ni mooy dem na ba amatul doole ñu ne da jox gannaaw am na wala amut waaw boo déggee ngay jàmb nit ki euh, dafa am benn intérêt boo xamante ne dañ ko teg sa kanam euh, sama diggante ak euh, docteur Cheikh Tidiane Gadio suñu président suñu leader. comme ni ma ko waxee sànq dafa rafetoon et président de la république moo ko woolu waxtaan ak moom boobu moom mu ngi bitim réew man maa ngi fii ku ci nekk xam na ne xawoon na fi am jafe-jafe ak justice américaine ci moment yooyu noonu d'ailleurs si la ñu décidé woon vraiment jéem a xool naka la ñuy def ba ñu participer à notre manière mais Cheikh Tidiane Gadio bi muy jël décision pour ànd ak président de la république boobu ñun daanaka claqué nañ porte bi parce que pare woon nañ pour ànd ak keneen entre temps si lañ ànd ak euh, beneen parti boo xamante ne mooy parti pur compagnonnage ak parti rek eh, daanaka yàggul quelque deux trois mois maximum donc voilà si le président de la république euh, si le si le ma président de la république woo moo première dame ñu waxtaan eh, par la suite si le ma premier ministre dalal par l' intermédiaire du DG Biram Faye ñu waxtaan bi ñu waxtaanee ba pare si lañ ma tàllal loxo ne naa dellu si ma jàppale leen mais comme ni ma ko waxee sànq encore une fois eh, Cheikh Tidiane Gadio néewaluñ ko doole parce que moom dafa dem dooleel président ñoo bokk bato eh, te bato bi benn destination la jëm te vraiment capitaine bi yaakaar nañ ne président de la république Macky Sall la donc foofu noonu yaakaaruma ne lenn lu ñaaw mu ngi fa amul benn xaar ma yàlla sama diggante ak docteur Cheikh Tidiane Gadio li ma ko waxee sànq loolu moom moo ci nekk ànd la woon boo xam ne yàlla moo ko tudd te lu yàlla jeexal nekk aussi vraiment il faut que ñu accepter ko avancer sur d'autres choses ñu gis ne opposant tey bi dañuy euh, jël seen loxo di ko jeexi jaaxa si si si géej maanaam pour làmb jën bi te ñëpp ñi nga wax ne jën bu mag bi mooy Macky Sall euh, yéen ñi nga xamante yéen gis ne yéen euh, amu leen seen tànk seet yan gaajo bu moom moo nekk foofu ca bitim réew mu am jafe-jafe lool Macky Sall dimbale ko mu ñib si ànd ak moom est-ce que nekkul problème boo xamante ni maanaam jaaxale wala ñàkk ñàkk pexe moo tamit ànd ak Macky Sall yow amoo foo teg sa tànk nga ànd ak Macky Sall loolu am na wala amut waaw sa sa question boobu noonu xaw na doy waar Eh, li tax ma ne xaw na doy waar eh, yaakaar naa ne Cheikh Tidiane Gadio comme comme mu ngi fii da ngeen di solliciter benn émission moom ngeen dem ngeen laaj ko lan moo waral àndam ak président de la république Macky Sall mais ñun suñu ànd ak eh, président de la république Macky comme ni ma ko waxee man sama engagement politique maa ngi ko tàmbali ak le président de la république Macky Sall 2008 mosuma def politique moom moo ma tax a engagé wu ci politique bi ma engagé woo tamit bi ma te nee la li waraloon ma engagé wu mooy population bi Karang bi ma demee ba gis ne population bu Karang gisul boppam ci programme yi nga xamante ne président de la république moom la tëgg si la décidé maak ña nga xamante ne ñoo nekk sama ginnaaw fee ci Kaarang ak ci département bu Foundiougne ak ñi ma gëm fii ci Sénégal ak si diaspora bi ñu won président de la république ginnaaw le temps moom ci boppam mu xoolaat boppam xool entourage xool ña nga xamante ñoom ñoo pare pour njëriñ ko njëriñ réew mi lii kese moom moo waral loolu noonu mais du lenn loo lu ñaaw la encore une fois muy jóge condition am yaakaar que ne bu amee deuxième mandat dina gestu li nga xamante ne mooy Karang ak département bu Foundiougne. Euh, d'accord euh, ñu leen di fàttali rek ba léegi rek yéen a ngi seen euh, émission li ci dëkk bi Abdourahmane Diallo ñu gisoon na yow ni ñu ko waxee rek à l'approche des élections présidentielles ànd toog ki nga xamante ni moo nekk Cheikh Tidiane Gadio sa leader boobu ñu na ànd ki nga xamante ni moo nekk Macky Sall bu ñu fa jógee nag for ci wébu bay ñuy danga amoon jafe-jafe am problème foo teg sa tànk ba parti bi nga xamante ni moo nekkoon parti pur yaa ngi ko jox sa loxo pour jéem a ànd ak moom ñii tamit di jéem a xool ba xam ne yàlla ànd ak ak Sonko ba dem na gis nañ fi nga xamante ni moo nekk ci sa page Facebook ngay xalaat ba xam est-ce que les populations pare ngeen pour ñu ànd ak Ousmane Sonko am déet ci li ma dégg gars di ko di ko wax nag ndax amoon problème di ànd euh, am koo àndal nga gis ne euh, da am problème pour ànd ak opposant bi te opposant moo fi nekk amuñu doole nga ci jéem a seet sa loxo jox ki nga xamante ni mu nekk président Macky Sall loolu laa bëgg nga ànd ñu fi tuuti loo xamante ni war nga ko mën a leeral Sénégal yi xam ko bu question boobu am na solo question piège la mais yaakaar naa ne du ma tàbb si seen piège. effectivement comme ni nga ko waxee tollu woon nañ jamono euh, ñu bëri ñu ngi doon xaar li nga xam ne moo nekk suñ position définitive par rapport ak partie bu ñu waroon a àndal ci élection yi. Eh, may fàttali ne ku am base politique fi mu jëm jaaxalu ko mais fa muy teg tànkam moo ko jaaxal eh, tubaab bi nag dafa ne la prudence et maire de sureté gis nga lu la tey mayul lu ne yàkkamti du la ko may looloo taxoon ñu jël suñu temps consulter ña nga xamante ne ñooy suñu conseil technique waxtaan ak ña ñu war a waxtaanal ci moment boobu noonu nag si la ñu ay leader yu jege Sonko solicité waxtaan ak ñun waa PUR déplacé wu ñëw seet si ñu ñu waxtaan ak ñoom ci offre yi nga xamante ne ni ñoom def nañ ko à travers leur programme si jamono yooyu noonu eh, waa PUR ñoom ñoo ci xawoon a niroog ñun gis-gis eh, waa Sonko waroon nañ ñëw ñu toog ak ñoom toog boobu mujjuta am te boo déggee ñu naan leader boo xoolee le mot leader dafa am benn verbe anglais bu ñu naan to lead mooy jiite maanaam booy jiite. il faut ngay gestu pour nga xool ña taxoon ñu naan yaa ngi jiite ñu ngi fa a nekkuñu fa ñu nag bi ñu geestoo ba gis ne ñu ngi suñu ginnaaw ñu laajte leen ndax bu ma demee di ngeen ma topp ñu ne ma waaw docteur foo joxoñ foofu la loolu moo waral au dernier moment si kaw président de la république ginnaaw bi ñu président de la république woowee ñu waxtaan ak moom ci téléphone mu manifester le désir d'accompagner la population de Karang manifester le désir d'accompagner la jeunesse de Karang manifester désir d'accompagner les femmes de Karang ak euh, département bu Foundiougne ci condition boobu noonu la ñu sukkandiku nangu loxo bi nga xamante ne moom la ñu président de la république euh, tàllaloon yaakaar nañ ne nag daw nekk ci opposition ñun ci misaal dañu naan boo ruujee sa tool nga ji ba war a jëriñu e ñu bëgg la delloo encore ci tool boo xamante ne nii yow da nga ko ruujoon ba pare parce que nekk ci opposition kuy door a tàmbali ak ku jaar ci opposition ba toll fenn fi vraiment mënuñ méngale seen parcours may fàttali sénégal yi que ne Abdoulaye wàdd dafa opposé wu ba ñëw au pouvoir e Macky Sall dafa opposé wu ñëw au pouvoir kon ñun ñu opposé wu dem lëkkaloo ak pouvoir tey parce que ku ci nekk dem na ba mu gis ne maanaam cinq candidats yi nga xamante ne ñoo mujjoon nekk Sénégal ku ci nekk dafa waroon a tànn ñu nag ci cinq candidats yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk gis nañ ne Macky Sall bu fekkee wàllu expérience su état la moom moo leen ko ëpp bu fekkente ne wàllu xereñ la amul kenn si ñoom ku ko gën a xereñ te gëm nañ ne aussi am na yërmande ci population bi loolu moom moo tax ci moment yooyu noonu gars yi ñu ngi naan ci période de doute la ñu nekkoon mais dama naan ci période de réflexion yu profonde ay xalaat yu méttee métti la ñu nekkoon mais nag comme que ñëpp ñu bàyyi woon xel te ku ñëpp bàyyi xel rek vraiment da ngay sonn parce que noo yëngatoonu ne rek dañ koy xam loolu moo waraloon moment yooyu noonu nit yi di ñii di rafet njort que ne ñu ngi ànd ak Sonko ñeneen ñaan est dinañ des pur mbolo du ñu mais li wóor ba leer population bu Karang wane na boppam ci élection yi ndax man lañ àndal mbolla leader yooyu ñu tànn la ñu àndal dañoo ànd ak man ma wëlbate ko ànd ak ki nga xamante ne moom moo ma doy ngir li nga xamante ne moo doy sénégalais yi donc suñu choix métti woon na méttiwul métti woon na si ñi nga xamante ne jàpp nañ ne ñun xamuñoon fu ñuy teg suñu tànk mais ñun ñi xamoon fi ñuy teg suñu tànk méttiwutoon benn yoon si ñun donc par rapport ak question boobu loolu laa am lu ma ci wax dinaan toujours choix bi ñu def am nañ yaakaar que ne njëriñu sénégalais yi moom moo tax njëriñu population bu Foundiougne njëriñu Karang moom moo tax ñu def ko jërëjëf. d' accord li ma gis rek mooy Abdourahmane jàlloo politique euh, tey. Euh, mënuma comprendre nga nekkoon koo xamante ni da ngay ñaxtu di di di jëmale ci nit ki nga bañ ko trop nangoo mosay nangu ànd ak ak Macky Sall loolu gisoon nañ ko ci yow ba lépp loo xam ne da ngay bind jëmale ko li nga xamante ni mu nekk ñaawteef ba nga xamante ni njiitu réew mi mu euh, nga euh, xeex tey da gis Macky Sall commencé ko jëfee moo tax nga ànd ak da nga gis benn tànk boo xamante ni mu ko jël di ko commencé liggéey Sénégal moo tax nga ànd ak moom mais bëgg di bañ est-ce am na te dama gisoon na da nekkoon opposant pur bu Macky Sall tey ànd ak moom loolu waral loolu tey. Euh, mosuma bañ le président de la république ci Sall il faut que sénégalais yi ñu bàyyi xel ñaari mbir euh, mooy nit ki ak jëfam. parce que bañ président Macky Sall pour man du loolu moo am sens bañ président Sonko pour man du loolu moo am sens bañ Idrissa Seck euh, pour man du loolu moo am sens li am sens mooy politique bi ñooñu di appliquer politique bu juste la wala du politique bu juste yaakaar naa ne booy bañ nit ki maanaam euh, loolu sax dafa nekkul lu daggan booy bañ da ngay bañ politique man politique yi nga xam ne président de la république Macky Sall da ko doon appliquer Kaarang gisu ci boppam loolu taxoon ma wone ginnaaw. te ku ci nekk si yéen tey xam na ne bu demee fee ci Kaarang dina gis ne commencé na am réalisation premier fo benn forage lañ amoon deuxième forage bi ñu ngi koy réaliser ñun ñoo organiser woon marche dox ko ñaxtu ko ba yàlla def deuxième forage boobu mu am wàllu courant bi ñun ñoo ko xeex marche bi waa faj fajri ñoo ñëwoon couvrir événement bi ñun encore ñun ñoo ko dox xeex ko ba ñu dëgg ñu yàlla def Kaarang commencé nañ yokk fi mu toll ni courant bi doyul ma ciy profité nag di invité état bi ñu jéem a xool naka la ñuy accélérer li nga xamante ne moom mooy wàllu ndox bi parce que population bi sonn nañ delsiwu ma parce que dafa am loo xamante ne ni dañu ko jox mbala leneen ak leneen dañoo delsi parce que gis nañ président de la république commencé na gestu Kaarang à travers ces deux réalisations tey Kaarang post de police la amoon am nañ commissariat de police léegi nag doléance yi am na lu ci des ci biir avec euh, émission bi dina si ñëw mais lu wóor ba leer jàppal ne euh, président de la république euh, njëriñ bi mu. commencé woon population bu Kaarang loolu kese moom moo ñu delloo siwaat ci biir mouvance am ñu nekk ay alliés man nag dama dellu ci parti ba nga xamante ne ca ña ko sos laa bokkoon muy APR membre fondateur APR la euh, d'accord membre ab fondateur bu APR la ba léegi rek euh, moom Abdourahmane Diallo nekk docteur euh, di leen wax rek yéen a ngi seen émission li ci dëkk bi. sa àndoog Macky Sall lan moo la ban buntu moo ubbi sa diggante ànd ak Macky tey ñu gis ne élection des présidentielles yi tey danga xeex sa sa base tey ba Macky Sall liggéey fa Macky Sall gagné fa tey lan moo lan moo la mettre en rapport lan moo tax nga ñëwaat ak lu la boole laat ak Macky Sall bien vrai que depuis 2008 yéen a ngi àndoon tey 2019 Macky Sall recevoir la ban nit moo ko dox ak lu war a tey tey nga engagé pour nekk APR. waaw sama retour APR ñaari nit ñoo ko waral fondamentalement ki si njëkk mooy DG Birame fay ak may Maysa Mayakor Diouf eh, Maysa Mayakor Diouf mu ngi liggéey ak euh, première dame. Euh, DG Birame Faye euh, moom comme ni ngeen ko xamee moom moo fi jiite woon ANPEJ mooy l' agence nationale euh, pour l' emploi et la promotion des jeunes moom moo ko jiite woon léegi nag ñoom ñaar ñoom ñoo ma mettre en rapport ak président de la république ak première dame DG Birame Faye moo ma mettre en rapport ak PM ñu ne ma docteur lan moo tax bëgguloo jàppale président de la république pour mu am deuxième mandat ma ne leen bañu ma ko jàppale mais su ma koy jàppale waat ci kaw condition waa Karang gis seen bopp réalisation yi ñu soxla Karang ñu am ko ñu nangul ma ko ñu ne ma bu ñu amee deuxième mandat dinañ jublu ci loolu noonu loolu kese moom ma tax a dellu si te yaakaar naa ne yeneen candidats boo gisee ñuy jël ay carte di leen sànnil pour bu ñu faloo ñu mën a njëriñ population bi donc contrat de confiance la ce contrat de confiance yaakaar naa ne moom laa waxtaan ak ñoom li wala fi di wax rek eh, li ci kanam raw li bët eh, donc nañ ko def defee noonu yóbbante suñuy bët ci kanam xool ba la nga xamante ne moom la ñu président dik ak gouvernement ak ñi nga xam ne ñooy ay collaborateur am dinañ ci teg bët bu ñu ci tegul bët nag ah ban tey la fi ne woon jógu fi abdu ma woon démb mooy Abdou mi tey mais Abdou mi tey dafa bëgg a doon Abdou bu pragmatique c'est-à-dire ànd ak gars yi jéem a xool naka la ñuy def ba Kaarang ak suñu Sénégal gis seen bopp ci li nga xamante ne mooy politique publique de développement. d'accord Abdourahmane nga nekk coordinateur du mouvement Benno Defar Kaarang tey nag euh, ca ñëw ci Macky Sall ñu dégg ci way booy ne tax na nga perte sa élément yu bëree bëri ba ñëpp jox la ginnaaw ba yëkk ne yaa des sa kaaxaan loolu am na wala amul loo ñu ci andil. waaw léegi xam nga wax moom yomb na. Euh, naam décision boo jël bu ne rek ci àdduna dafay am conséquence moo xam ay conséquences yu positive la moo xam ay conséquences yu négative mais nag am na décision yoo xamante ne boo ko jëlee rek boo moytul nga ñàkk lépp ñun jàpp nañ ne décision bi ñu jël dañ cee gën a gis suñu bopp naam am na ñenn si suñu euh, mouvement ñoo xamante ne nanguñu woon décision bi biñ ko jëlee mais mën naa la ne bu fekkoonte ne fukk ñoom ñoo bañoon décision bi juróom-ñeent yëpp dellu si nañ bi président de la république ñëwee Kaarang ba ñu gisalee seen bopp que ne docteur mi kat lim ñu waxoon ci président de la république Macky Sall lu am la eh, dellu si nañ. te loolu feeñ na ci résultat bi nga xamante ne moom la ñu am élection yi passé parce que président de la république ñun waxoon nañ ko ne lu mu gàtt gàtt 65 pour cent dinañ ko ko may Kaarang te Kaarang moo nekkoon la dernière des communes maanaam si fukki commune ak juróom-ñaar yi nekk si département bu Foundiougne toujours bu ñu doon dem élection Kaarang moo doon jël ndaare suñu ñëw nag. wane na ne Kaarang nekkatul ndaare raw nañ ay kàngam ci département bi loolu noonu dafay wone ne suñuy nit topp nañu ñu parce que suñuy nit bu ñu toppatoon amaana résultat boobu duñ ko mën a am léegi nag loolu preuve la nekkul loo xamante ne waxal ma wax e joxoñal ma joxoñ loo xamante ne mën nañ ci teg baaraam la donc ñu ngi jóge woon 40 virgule 33 pour cent dem 67 virgule 92 pour cent la waral loolu ñëpp xam nañ ko. d' accord euh, Karang commune actuellement mu ngi nekk euh, ci nga xamante ni moo nekk 67 virgule et quelques pour cent ci présidentielles yi euh, dinañ dugg ci li nga xamante ni moo nekk préparation des élections municipales. waaw réalisation yi président de la république defagum 40 bu fekkente ne waxante dëgg rek moom moo ñor mën nañ ne ay réalisation yu timide la. parce que second forage bi eh, taxaw na waaye population ba léegi ñu ngi jànkoonteel jafe-jafe ndox ñuy ñaan nag président de la république eh, mook ñamu àndal muy gouvernement am ñu jël ay mesures yu urgentes par rapport ak jafe-jafe ndox mi ci kaar ak ñu régler ko parce que population bi loolu la xaar ci moom te loolu moom moo tax population bi sànnil ko ay carte euh, deuxième réalisation boo xamante ne tàmbali na moom mooy extension réseau électrique bi euh, ñu ngi ko am booru Sirma ak booru Sànci Saadi ñu bëggoon nag lépp loo xamante ne moom mooy quartier périphérique ci Kaaran ba ci quartier bi gën ancien ci quartier yu Karang muy quartier Karang Socé président de la République def le tout ba ñu mën a am courant maanaam muy électrification universelle de la commune de Karang donc ñaari réalisation yi ñoom ñoo fa am ñu ngi koy xaar ci emploi des jeunes ñu ngi koy xaar ci financement jigéen yi ñu ngi koy xaar ci li nga xamante ne moom mooy tabax yi nekk foofu noonu ñu ngi koy xaar ci li nga xamante ne moom mooy voirie communale ñu ngi koy xaar ci li nga xamante ne moom mooy drainage des eaux usées maanaam karang bu tawee day taa ñu ngi koy xaar ci loolu noonu ñu ngi xaar également ñu renforcer sécurité bi foofu noonu ñu ngi koy xaar ci li nga xamante ne mooy stade municipal ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar ci ay programme yu bëri bëri foofu ci Karang te am nañ yaakaar que ne ak deuxième mandat bi mu am ni ak pourcentage bi mu am Karang am na yaakaar que ne président de la république bi pas du fàtte Karang benn yoon. d'accord euh, li ma dégg si ay waxam yi ñu ngi koy xaar la nekk loo xamante ni réalisation lu mag Sall daal di def foofu euh, amaana sax dañuy ñaaw njot rek dana amam déet loolu yàlla rek moo xam waaye docteur Abdourahmane Diallo loolu est-ce que war na mën a tax nga yaakaar ne yow moo la gën a mën a pousser tey nga ñëw bokk liggéeyal ki nga xamante ni moo nekk euh, ma déggee sa biir wax sànq yi nga ne mag Sall dafa fekkoon ay par exemple ay quarante et quelques pour cent tey nga ñëw bokk am yaakaar na yaw tey sa bokk tey ci géew bi moo tax tey nga am am lu mel ni ka 67 pour cent et quelque euh, loolu euh, est ce que deful ay jafe-jafe seen diggante yi nga xamante ni moo nekk euh, responsable bi nekk foofu suñu seetloo ci Kaarang am nañ ki nga xamante ni moo nekk Gomis moom moo nekk maire actuel ak ki nga xamante ni moo nekk maam soxna kii maam Diarra Ibrahima Diop mu ngi fa ak Ousmane Sané. Sène Ousmane Sène mu ngi fa yaakaar naa un certain Sané mu ngi fa Ibrahima Sané tey nga ñëw taxaw ñu gis na nga nekkoon opposant bu gën a doole. bu am doole foofu ca Kaarànge li tax gëmoo sa bopp nga nekk ñett doo ànd ak kii tey pour élection législative yi di ñëw tey te dama gis ne bëgg naa nga am ne ma wax ma tamit gis naa ne politiciens yi nga xamante ñoo nekk ca Kaarànge jubóowuñu te yéen a bokk parti bi li tax jubóowu leen. waaw question boobu noonu am na solo eh, da nga ne lan moom moo tax ñu ñib si te ñu nekkoon opposition boo xamante ne moom la ñu gënoon a bàyyi xel ca département ba ak ca commune bu Karang li tax ñu ñib si comme ni ma ko waxee ñun dañu taxawoon di opposé wu parce que Karang amul ndox nee naa la commencé nañ réaliser deuxième forage bi dañu taxawoon di opposé wu parce que Karang amul courant nee naa la ne tàmbali nañ électrification bi ba tax na maa ngi lancé appel président la république ba ñu ko jàppale ba mu am deuxième mandat mu jublu ci loolu noonu xam ne urgence demande sociale la bu ama am doole une demande sociale très forte au niveau eh, de Caen léegi loolu noonu moom moo tax ñu dellu si te am nañ yaakaar que ne président de la république bu narutoon accompagner population bu Caen du ko doon jaral ci campagne am am na ay dëkk yoo xam ne yeggu fa mais boole Karang ci programme am tax na mu déplacé wu ñëw ba Karang eh, waxtaan ak population bu Karang jël fa ay engagement tey site internet yëpp ñu ngi wone engagement yam fa jëloon eh, sortie yi ñuy def également mu ngi fësal ya nga li nga xamante ne mooy engagement yi président de la république jëloon diggante moom ak population bu Karang léegi nag xëcco bi nga xamante ne am na ci biir euh, coalition Benno Bokk Yaakaar et c'est très normal hein parce que euh, la vie politique est ainsi Eh, fu choc des ambitions amee amee rek il faut xëccoo mu am mais nag dafay laaj toujours maanaam ñiy xëccoo ku ci nekk xam ki mu war a teg mbagg ki mu war a diir mbagg te gis nañ ne président de la république lu koy gën a xaw a sonal eh, ci gox yu bëri lu mel ni département bu funjuñ muy xëccoo boo xamante ne eh, teguñ ko fen parce que lu mel ni Karang tey bu fekkente ne day am ñoo xam ne dañ leen di bëgg a jëlee ci kaw ñëw parachuter leen imposer leen nit yi population bi xamuñ leen population bi ñi ñu xam mooy ñi fi nekkoon démb ak barke démb xam li ci ngénte yi xam li ci dëj yi xam li ci céet yi di ànd ak population yi muy metti bu ñu demee ba mu neex nag ñu jékki-jékki bëgg ñoo indil ñeneen duñu ko nangu te population bi du ko nangu donc président de la république koy xaw a indil jafe-jafe tuuti ci département bu Foundiougne lu mel noonu la parce que bu fekkutoon ne yu mel noonu moom moo am tey guerre de positionnement yooyu noonu ak parachutage injustifié yooyu noonu ba doon tey yaakaar nañ ne pourcentage bi ëpp doole ci biir Sénégal département bu Foundiougne moo koy joxe mënoon nañ dem ba quatre-vingt-dix quatre-vingt-quatorze pour cent mais comme que xëccoo moo fa nekk moo taxagum ñoo ngi ci quatre-vingts virgule pour cent te yaakaar naa ne pourcentage boobu bu ñuy xool département par département ci quarante-cinq départements yi nekk Sénégal ñun ñoo nekk sixième position ci quarante-cinq départements yooyu noonu te xëccoo ba nga xamante ne moo nekk ci département bi moom moo ko waral bu xëccoo nañ ne ñoo département bi jiite ci Sénégal. Abdourahmane Diallo li nga wax am na solo le docteur euh, de tous les temps tey nag moom la ñu dalal tey suñu plateau macha mu nekk koo xamante ni euh, responsable politique la ca diwaanu département bu Foundiougne mais attends dama dégg Macky moom dafa nekk koo xamante ni en président de la du Sénégal au lieu mu nekk ki nga xamante moo nekk Sukar ak Lem dafa nekk seen toog tey yéen ñi nga xamante ni ne nekk les maires maanaam dafay ñëw jaxase si naka mooy politiquement euh, ñuy wax ne Macky Sall politique dafa garaaw trop ku nekk dalay wax lu mu lay wax tey te ma ci kaaraan laa mën a appuyer foofu tey ni ma ko waxee sànq leader yi fa nekk tey ngeen am problème te gars yi ñuy wax ne tey yaa mujj ñëw ci parti bi tey te si euh, élection législative présidentielle yi nga ñëw nar a opposé sa doole wala ko fa gars yi ne du fi amee est-ce que loolu dina andiwul seen problème dëgg-dëgg problème daanaka bu ñu naan politiquement problème amu fa la fa am guerre de positionnement la moom moo am ci département bi parce que nag man du ma nangu yor doole bi ba pare ku yorul doole bi ñu bëgg a jaar ci moom ñu ñu ma koy imposer. dañu ne politique base la politique rapport de force la koo xamante ne day participer élection de 2014 bokk ci référendum jóge ci bokk élection législative ñëw présidentielle participer doon voté bokkut ak koo xamante ne mosut a voté Kaarang wala mosut voté ci département bi dafa toog ba soxlaam taxaw mu ñëw bëgg xam population bi ñëw ne fi mu toll ne xam leen ma lii laa yor nii laa mel gëmuñ loolu dañu ne foofu la ñu juddoo màggee fa yaroo fa xam population bi li muy dund président de la république yàlla def moom it bu mu quitté assemblée nationale 2008 mu wër Sénégal xam sénégalais yi li ñuy dund ñu xaw a niroog moom vision xaw a niroog moom conviction su may dégg ñu naan moom moom mooy waral sa jeu mais nit ki mënul bëggal boppam ba pare wëlbateeku di xeex boppam parce que moom mënul soxla maire yi jàppale ko ba pare muy jaar digganteem ak maire su ko defee maanaam résultat yi bu feeñee ëllëg ci biir moom mooy yàqule du maire ñoo yàqule. waaw mais xam nga euh, daf ci am ñoo xam ne ci politique bu may dëgg ngeen leen di tudd da ngeen leen di bëgg a favoriser xam nga loolu lañ leen di attaquer parfois am na ñoo xamante ne amuñ base dañoo ñëw bëgg a exister politiquement di jaar ci médias yi di jaar ci réseau sociaux yi boo bëggee xam ku am base da ngay dem xool kan moo participer ci élection yi fi jote a jaar. 2012 le président de la république Macky Sall falu 2012 ñun ñoo ko fal 2014 lañ dem élection municipale gaayam yi bëgg ñoo imposer naka sudul noonu ñu jël suñu liste demal suñu bopp am ñett conseillers municipaux ànduñu ak kenn am 259 voix jóge foofu ñu dem élection législative ñoom ñuy nelaw ñun ñuy liggéey ñu jóge 259 voix am 523 voix ci département bu Foundiougne ñun ñoo jël deuxième ci élection législative yi passé 4877 voix la ñu amoon 1300 voix moo ci génn mooy 1300 voix yi nga xamante ne moom la maire Petit Gueye jël yóbbu ki nga xamante ne mooy Idrissa Seck waxoon naa leen ko eh, ni ko suñu benn naataango député di waxee ci département bi opposants yi du ñu fi naanee ñeex waxoon naa ko ni yoroo leen ñeex loolu moom moo tax opposants yi di fi jéem a ñeex léegi nag yàlla def na li muy def dellu nañ ne. comprendre na ne fi mu toll nii dynamique d'unité départementale dynamique d'unité communale loolu moom moo mën a renforcer la nga xamante ne mooy assise politique am ci département yu Sénégal yëpp ci commune yu Sénégal yëpp mais bépp leader boo xamante ne tey dafa yaakaar ne parachutage moom moo koy tax a exister politiquement président de la république dafa war a jël ay matuwaay ci ñooñu noonu parce que ñooñu non seulement ñooy tardeel population bi ñoom ñooy tardeel gox yi man dama gëm ne politique ki jege askan bi yërëm askan bi xam jafe-jafe askan bi kooku noonu la ñu war a jiital kooku la ñu war a déglu. waa doole gi kaarang ñoo ko yor yoruñ ko les chiffres son là ñun bi ñu àndee ñun kese élection législative yi mujj 523. te amuñu woon coalition la coalition Benno Bokk Yaakaar boo boolee leader ya fa nekk yëpp ak moyens ya ñu jot yëpp mille cent vingt trois voix la ñu amoon mil mille cent vingt quatre voix du moins mille cent vingt quatre voix tey boo ko jëlee nga xaajale ko ñett leader rek amu ci kenn koo xamante ne dina am cinq cent vingt trois voix yi nga xamante ne ñun amoon nañu ko. léegi nag ñun ci parrainage bi dañoo wane suñu bopp parce que sept cent quarante parrain la ñu amoon ñu déposé ko. parrainé président de la république te parrainage boobu feeñ na si parce que tey boo jëlee 740 yooyu ñu amoon nga teg ko ci 1124 yi nga xamante ne moom la président am ak yi nga xamante ne entre temps dem nañ ci opposition bi ñu jëli leen ñu ñëw loolu moom moo ñu yóbbu ñu jógee 1123 moom la coalition Benno Bokk Yaakaar amoon élection législative yi passé ñu yóbbu résultat bi 2321 voix opposition bi faible fa trop. lu mel ni Idrissa Seck 537 voix la fa am lu mel ni Ousmane Sonko 504 voix la fa am te li tax sax ñu am fa doole moom mooy politique bi yenn maire yi di mëne loolu kese moom moo tax opposition bi xaw fa fraatu tuuti mais sinon opposition bi ñun mouvement Benno Defar Kaaràn bi mu fekk jee président de la république xajamal na liggéey opposition bi fee ci département bi ak fee ci commune bu Kaaràn. d' accord euh, man euh, Abdourahmane am na yoo du ma nangu ak yow du ma ko d' accord parce que yow mën nga mujj ñëw si parti bi nga xamante ni moo nekk APR nekk fa dernier fu nga xamante ni moo nekk Kaaràn la des ni ba léegi Ibrahima Diop mu nekk koo xamante ni Pamam Diar xam nga ko bu baax euh, mu nekk ku am doole ca foofu diwaanu Kaaràn li ñu koy waxee mooy Pamam Diar loxo ci poos koo xamante ni dafay joxe ay xaaj yu bëri diwaanu Karang di liggéeyal waa Karang bu baax mu nekk ko ànd ak ki nga xamante ni moo nekk le ministre de la culture Abdou Latif Coulibaly jox bopp lool mu jege Macky Sall lool tey nga taxaw ne ñoo koo xamante ni suñu leen tudd da di may li nga xamante moo nekk di réussir maa ñu may leen doole euh, est nekkul ne yow Abdourahmane yow jafe-jafe yow yaa ko nar a andi foofu ci Karang parce que gis naa ne yow da ngaa ñëw ba fu nga xamante ni moo nekk ci parti bi mujj ñëw ba pare nga nar a opposé sa doole te da nga yow wax sa bopp bàkk sa bopp ne da am doole naka nga amee doole ci kër boobu te papam papam jaare nekk fa Gomis nekk nga xamante ni moom moo nekk Ibrahima Sané nekk fa ak Ousmane Sène te yaa ñëw si parti bi mais attends yàlla wax ñu loo xamante mën nañ ko mën a dégg waaw jiitu fi te defaroo mujjee ñëw di defara ko gën eh, te ñun damay fàttali ne ñun ñooy membre fondateur parti bi bi muy métti Macky Sall bu muy doon gestu bi muy métti ñun la doon gis 2008 2010 bi mu amee mandaam moment boobu méttiwul bi muy métti bu fekkoon dañoo bëgg lu yomb 2014 du ñu xàll suñu yoon dem am suñu trois conseils municipaux ci biir six mois la ñu campagne population bi am si ñun yaakaar six mois sans mois ñu am trois conseils municipaux jóge si ñu dem doon candidat élection législative yi ñi ngi may tuddal bu fekkente ne ñoom liggéeyal nañ Macky Sall lan moo tax élection législative yi kaarang doon doon ndaare lan moo tax élection législative yi ñoom mënuñoo am 50 pour cent 40 virgule 33 pour cent lañ am bu doon ñoom ak ñoom kese la ña ngi may tuddal bu dee ay kàngam lañ ak ña ñu àndal bu dee ay kàngam lañ lan moom moo tax seen résultat munu mënutoon yegg 50 pour cent ñu yemoon ci 40 virgule 33 pour cent donc suñu ñëw. am na lu mu indil président de la république ñun dañoo jëloon ay engagement teg ko ci ay chiffres parenage bi bu fekkente ne ña may tuddal wóolu nañ seen bopp nañu wax lu ñu indil président de la république ci parrainage bi fee ci kaarang résultat yi ku ci nekk bi nga déposé wax nañ la li nga déposé ñaata la jox nañ la kayit ñun ñu ngi kayit boo xamante ne day firnde ne lii la ñu déposé donc nekk ci mbedd mi ak nekk ci média yi comme ni ma koy waxee journaliste ni ñu koy waxee et les faits sont sacrés les commentaires libres ku ci nekk nag du la neex ngay commenter mais nous on parle de 2014 la ñu participé am trois conseils municipaux avec 259 voix législative yi 2017 ñu am 523 voix référendum bi ñun ñoo tere woon gars yi siiw ci département bi Karang encore moom moo remporté woon yëf yi jërëjëf. d'accord merci les commentaires euh, euh, sont libres les faits aussi son sacrés yaakaar naa tamit continuer rek di commenter euh, suñu émission tamit li ci euh, dëkk bi dañu des ni rek waxtu wi dafa jëm si jeex docteur li ñu def rek mooy dañuy desandiku li nga xamante moom lu ñuy waajal mu nekk élection locale yi nga xamante ni ñu xaccoo li nga xamante moo nekk mairie ndax taxaw nga pour nekk maire Karang waaw sama yëngatu ci politique yëpp. Euh, ginnaaw accompagnement bi nga xamante ne maa ngi koy defal président de la république tey mooy taxaw doon kilifa dëkk ba nga xamante ne fa laa juddoo màggee fa tàmbalee fa sama njàng tey njëriñ sama gox njëriñ sama population loolu moo tax a engagé wu. candidat laa ci élection municipale yi ñu jëm bu ma yàlla mayee fan ak fekkee ak wër ak man mais may yaakaar ne aussi eh, ña nga xamante ne tàllaloo nañ ñu loxo ñu ñëw fekk si leen. bu ñu taxawee ne ñun soxla nañ doon candidat dinañ ñu fekk ci suñu bëgg-bëgg parce que lañ leen indil nag ñëpp ci teg bëtan ah kenn du ko jeex 40 virgule 33 ba 67 92 eh, pour cent loolu du yëfu caaxaan. dégg naa ca Kaaxang euh, monsieur Gomis mooy seen problème yéen daal Gomis daal bu mu àndeek mbay jàmmee yéen daal euh, Mbaye Diame nga xam ne moo nekk ci département ba euh, moo tax Kaarang mënu leen fa am dara Gomis la moo nekk sa relation ak moom da nga kaa da ngeen ko ragal ci politique nu demee noonu quoi. waaw boo ma ne Gomis mooy suñ problème ci politique kaarang ay retard la may def parlon encore de fait élection locale yi passé Gomis bi mu àndee ak waa AFP ak PS 776 voix la am suñu koy xayma ci pourcentage mu ngi amoon 33 pour cent opposition bi moom moo contrôlé woon encore majorité bi foofu ci Karang ku am pour cent nag wax dëgg neex yàlla bu bëggee xëccoo ka nga xamante ne ni moom il était seul et il avait 20 pour cent parce que ñun moom lañu ñu amoon on avait trois conseils ànduñu woon ak kenn sans moyen encore une fois Gomis du suñu problème Gomis bu doon bu fekkoon suñu problème la. dafay indi li nga xamante ne muy courant indiwu ko ñun ñoo ko xeex lii di ndox ñun ñoo ko indi centre de santé ñun ñoo ko xeex nit ki nag balaa nga koy ragal ci politique na fekk mu nekk koo xamante ne ci ay réalisation la nekk mais ku nekk ci ay discours kese amul lenn loo xamante ne yóbbul na ko li nga xam ne mooy opposition bi Gomis nag fi mu toll nii dañu nekk ci benn dynamique boo xam ne mooy jàppale président de la république pare nañ ci jàppale bi ñu doon jàppale président la république am na deuxième mandat élection yi ñu jëm ni ñu ngi déglu président de la république mais may yëgal waa Kaarang di yëgal waa gox bi que ne candidat laa ci mairie bu Kaarang ku bëgg loolu la ku bëggul loolu la di woo ñëpp nag ñu jàppale ñu ci choix boobu noonu nga xamante ne mouvement Benno Defar Kaarang ko ci kaw condition ba nga xamante ne jëloon nañ ko aussi pour accompagner président la république ba am deuxième mandat. nga xamante ni moom moo nekk euh, monsieur Ibrahima Diop Mame jaara dégg naa say partisans ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow ñu ne moom doonu dara si dëkk ba. dafay ŋàññi rek di wax lu ko neex mais amul sax fu nga xamante ni moo nekk bâche maanaam amul lu nga xamante ni moo nekk récépissé sax pour nekk maire de la commune de Karang loolu ñu si andi en tant yow leader bu nga xamante ni nekk benn defar Karang. waaw kooku sama rakk la euh, may fàttali nit yi ci histoire euh, ci sama mouvement la nekkoon euh, membre simple la woon ci mouvement bi kenn ca ña muy àndal sama trésorier la woon ñu naan ko chinois. donc euh, dama koy jàppee ni sama rakk day door a tàmbali maa ngi koy ñaanal vraiment yoonam rafet ci politique mais na fexe tamit mu rafetal politique am mën loolu rek koy ñaan te euh, am yaakaar que ne aussi euh, mën na exister politiquement bu fekkente ne gëm na boppam gëm boppam nag mbir mi du politique ku poos dañu ne mbir mi xel la parce que tey bu doon poos kese la Sénégal dem na chaque élection moom la nit di jooy jàpp xaalis di tuur di ko naxee population bi ñun gëmuñ loolu li ñu gëm mooy ñëw waxtaan ak population bi xam lan mooy seen jafe-jafe jéem ci jublu donc euh, c'est un peu sa le discours. Euh, d'accord euh, merci euh, ñi nga xamante ni rek yéen ñu bàyyi xel ba léegi rek euh, si la télévision suñu TV ñu leen di béggee di leen jaajëfal di laaj saa yu nekk de na ngeen aimé. partager li nga xamante ni moo nekk euh, suñu vidéo lu ma lay jeexale ak yow suñu émission rek mooy yan condition nga yaakaar ne tey Kaarang moo ko mën a defar en tant que ki nga xamante ni doomi Kaarang euh, politique yuuxu fii xacc andi sa bopp est-ce que loolu war na mën a yor Kaarang yan anam lañ la la leader yi mën a def nekkoo benn pour ñu yor li nga xamante ni moo nekk Kaarang waaw sa question boobu am na solo euh, li ma yaakaar mooy li fi di wax mbooloo mooy doole Euh, ginnaaw bi ñu booloo ba pare woote unité locale unité départementale unité national cohésion ci kaw unité boobu noonu la mën a am ginnaaw bi pour loolu mën a am aussi il faut ku ci nekk nangul moromam cëram bàyyee ko ko mais munoo ñëw fekk nit yi ci terrain bi ñu yàgg di liggéey am base liggéey ak askan bi porte combat askan bi ci opposition parce que opposition ku ci nekk xam na ne neexul bu ñu demee ba ñu nangul li nga xamante ne mooy président de la république bëgg-bëggam par rapport ak deuxième mandat ñooñu bu ñu ñëwee war nañ leen jox li nga xamante ne mooy seen ax ñu ngi déplorer tuuti nag élection yi ni mu demee ci yenn commune ci département bi parce que am na ci ay maire yoo xamante ne boolewuñu woon yenn leaders yi surtout ñi door a ñëw ci li nga xamante ne moom mooy processus électoral bi mooy comité électoraux yi nga communaux yi ñu taxawloon ak euh, li nga xamante ne mooy appui yi nga xamante ne jóge woon na ci président la république waroon dem ci population bi. léegi nag euh, unité locale boobu ak unité départementale boobu noonu man appel boobu lay lancé ñi nga xamante ne ñooy responsable yu mag yi fii ci département bu Foundiougne commune bu Kaaran ñu ngi ñaan ñi nga xamante ne yàgg nañoo yëngatu ci terrain bi te wane seeni limite ñu may chance ndaw yi nga xamante ne ñu ngi door a jóg politique u xaalis baax na mais ci kaw xaalis bi di dem ci li nga xam ne mooy ay réalisation courant ndox dispensaire marché yu baax ay stade municipal lycée en centre de santé ainsi de suite donc euh, par rapport ak loolu noonu euh, sa question boobu loolu laa am lu ma wax encore une fois bu fekkee permettre ma nga ko vers la fin de l'émission bëgg na am benn moo bu ma adressé un peu à la population du département de Foundiougne ak population bu Karang vers la fin Euh, d' accord foofu la ñuy jeexalee rek émission bi sax na presque cinq minutes euh, ñu mën a tàggatoo li nga xamante ni moo nekk euh, suñu émission li ci dëkk bi ñu dalal ki nga xamante ni moo nekk docteur Abdourahmane Diallo foo rek la lay joxe sama kàddu nga tàggatoo ak yan nga mën a résumé jëmale ko li nga xamante ni nekk département fu ñu rawatina commune bu Karang bu nga xamante moom la ñu bokk ñun ñëpp votre mot de la fin monsieur Abdourahmane Diallo. waaw moo de la fin bi dama koy tënk fenn ne président de la république dama koy adressé benn message bu fort di ko adressé responsable régionaux yi di ko adressé responsable départementaux yi di ko adressé l' ensemble des responsables communaux di leen yëgal ne ginnaaw bi ñu jàppalee président de la république ba mu am deuxième mandat fee ci département bu Foundiougne ak taux boo xamante ne bu ama am solo la quatre vingt virgule soixante quinze pour cent eh, taux bu ama am solo la ñu yaakaar ne loolu noonu nag li ci war a topp ba ni la jeunesse département de Foundiougne la jeunesse particulièrement du Ñombato surtout la jeunesse de Karan jëm a xool naka lañ leen di responsabiliser am na benn yoon boo xamante ne diggante Toubacouta ak Missira bëgg naa président de la République mu jàppale population yooyu noonu ba ñu mën koo bitumer parce que yoon boobu noonu vraiment eh, bu nawet jotee population yi dañ ci sonn ginnaaw loolu noonu aussi may invité li nga xamante ne mooy président de la République ak nu mu gën a gaawee réalisation yi vraiment ci li nga xamante ne mooy ñoom baatu ñu yokk ko ak ni mu gën a gaawee eh, di invité président de la république mu accompagner jeunesse bi ci wàllu sport ci wàllu culture di ñaan président de la république également mu accompagner li nga xamante ne mooy jigéenu ñoom baatu jigéenu département bu fu Foundiougne surtout jigéenu Karang di ñaan président de la république mu bàyyi xel li nga xamante ne mooy néegu diine yi fee ci Karang di ñaan président la république ñee nga xamante ne ñoom la ñuy woowee ay waylaago mu bàyyi leen xel ñu ngi quarante vraiment seen politique d'accompagnement des na di ñaan li nga xamante ne vraiment moom mooy école bi moo xam école arabe moo xam école nasaraan ñu jéem cee dugal loxo Karang ville frontalière la crise gambienne bi bi mu amee wone na ne Karang dëkk bu am am solo la am na benn forum CEDEAO bu ñu fa organisé woon ba Karang lancé woon appel ñu ngi ñaan ki nga xamante ne mooy Mbagnick Ndiaye ak yenn autorités yi nga xamante ne ñoom ñoo féete ci côté département bi ku mel ni Abdoulatif Coulibaly ku mel ni honorable euh, député Pape Seydou Dianko ku mel ni suñu président conseil départemental papa muy Moustapha mbay ak maire yooyu noonu di Lassana saano ak euh, amadu Debe bu Passy ak Issa Ba bu Foundiougne ñu jéem a xool naka la ñu accompagner président de la République mais aussi naka la ñu accompagner commune bu Karang jërëjëf. Euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk yi safoo leeru suñu TV lii moo nekkoon li nga xamante ni tey moom lañ leen andil tey ci plateau. daloon ki nga xamante ni moo nekk docteur Abdourahmane Diallo nekk coordonnateur du mouvement Benno Defar Kaarang en même temps aussi mu nekk conseil municipal foofu ca commune bu Kaarang moom mu nekk premier coordonnateur APR ca Rus euh, nekk tamit li nga xamante ni moo nekk coordonnateur du mouvement Benno Defar suñu département maanaam Foundiougne euh, moom Abdourahmane Diallo tey moom la suñu TV daal daloon euh, ñu ngi jaajëfal mbokk yi nga xamante ni rek yéen ñu bàyyi xel di suivre bu baax leeru suñu TV di jaajëfal a baax soxna Awa Cissé mu ci toog bi moom nga xamante ni mooy euh, présenté à tout moment émission lu ci dëkk bi ab ndog-ndog rek moo ko traité teew tey ci plateau bi euh, DJ Ama toogaloon rek ci plateau bi di jaajëfal tamit sama camarade euh, ci caméra bi ak réalisation bi ak son bi di jaare tamit suñu monteur moom nga xamante mooy monté suñu émission à tout moment ñu di jaajëf lu baax a baax mbokk safoo leexu suñu TV lii moo nekk lu ñu andi tey fii ci kër Abdourahmane Diallo docteur ñu leen ak euh, di leen ñaan ngeen suivre programme suñu TV jërë ngeen jëf.